والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرتضى وعلى آله وصحابته ذوي التمكين والرضا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يلقى المسلمون الفوز والرضا بوكي جلد يتدي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 seen jëmm yu tedd yu sell muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di del siwaat ci kartanal yàlla fas yéene sof ak yow rek li ma sosoon yow ci wàllu xadiisu sabaax xam naa ne sax démb dëxaloon naa la yaa ayuha alladina amano ja nekk ci suratu nuur di ñaareel ba waaye daal damay ñëw rek mottaleeg yow daal bi ma njëkkoon na dalak ak yow yaa ayyuhal lazina amanu yaa ayyuhal lazina amanu laa tabi'u xutuwaati shaytaan defoon naa ci yenn waxtaan dama koy ñaareel bala maa ñëw yow ci yaa ayyuhal lazina amanu laa tadxulu buyutan xayra buyutikum ata tastanisu wa tusallimu ala ahliha ñaareel gi mooy rek wax la ne waxoon naa la démb ci waxtu wii saytaane ngànnaay yi muy yor di ca jaaree bi yàqal nit ki di ca jaaree di yàq waxoon naa la ca démb lu mat juróom-ñaari yëf daanee woon ko nag ni daal nañuy góorgóorlu yi tëj suñ bool yi di dëpp suñu kaas yi di takk suñuy saako yi di tëj suñ bunt yi yonent bi nee na bunt bu tijjee ko rek seytaane mën na faa dugg ca néeba tey balaa génn na mu dugg ci ne ba fekk fa ay bagasam te legi bagasi yi seytaan yi dafa bari suñ kër yi dafa bari ci suñ néeg yi su nak da fay far dekk fa rek waye mu ne setan lu ma ma am doole bo xasse tëj sa buntu bi du ko tijj mo xam ciabi nga mo xam ciabi wo delul porte ba sax rek bam mu mu ne timit sa ndab li nga jëfandikoo soko xasse up mom du ko ubbi amul force boba sa saako bi boo ko takkee moom du ko tekki waaye sa kaas yi boo ko tëjee walla nga dëpp ko moom saytaane du ko dipparti waaye yooyu yëpp ca amut ba mu xaf jëfandiku ca yow nga jëfandikuwaat ca dangar ja dafay roogaat ci sa yaram wi su boobaa dafa lay xirtal ci mooy yàlla ci njaalo ci sacc ci fan ci wax wax ju bon su boba na kon yooyu yeb nañ koy daw kon motax yalla ne kon bu len top yoonu shaytan yi ya yalla seen la tabiu khutuwati shaytan khutuwat nak Ali ibnu Abi talhata jëlee na ci ibnu Abbas mu ne xutuwaat daal du dara lu amaluhu mooy jëfi seytaane ikrimatu mom nim ko firé moy moy nasakhatuhu moy cojjal gi lay seytaane di cojjal ngay jàdd ngay jadd yoon wi mu lay dévier xataadatu na déeréet xutowaat dal moy bépp ak moy yalla bo jélé nak ñu tuddé abu Mujlis, dafa né moy nisar yi ñi nisar ci moy yalla yépp ci xutuwaat la bo jélé masruq mom dafa wax ni تبارك الله لاج ген غور لاجنا ابن عباس بام كو لاجي نكو اني حرمت ان اكل طعاما وسماه فقال هذا من نشقات الشيطان كفر عن يمينك وكل بن واي دفني ابن عباس من دال دغ دغ دال دما حرام مالك سما بوب ген لك لك غنك تودكو waaye yow mi may jàngal pour nga bëgg koo dégg mu gën laa jege ni mooy ceeb rek ne daal dama xaramal sama bopp lekk ceeb ndax senegal yi dañoo bëgg dañoo nekk ñu bëgg ceeb nam gën a tooyee rek ndeysaanam ca jamono yi ndeysaan ba daara yi métti daa nga gis koo xam ne bu lekkaan ceeb du raxasu dafay bàyyi loxo yi mu niin noona bu dajeeg moromam yi di ko tiitaroo si tey dama dank dank te damaa wañ a wañ tur wu ne dana ko ko tuddee gis nga sama loxo yi nim nii ne di ko tiitaroo te xamul ndeysaanan cholestérol ba ca mën a juddoo ak ya ca xaju yëpp tey bi bi médecine demee ba trouvé yooya waaye bu njëkk ba lekk ceeb raxasu doo ko gis mukk booba tiitaru rek tiitaru rekk soo yoree sa kalfe bi ñaari téeméer dugal ko ci sa jiin bi fëgg jiin bi ne tey ma taxal dëkk bi ci ñaar téeméer kooku boo xamee ñaari million taxal àdduna bi nga lek ceeb do raxasu ko dajek ne ko dama waña wañ bay bëgg dé gis nga sama loxoy nim ni ne di ko wan mo tax dëgg-dëgg dañoo santul yalla way jamono neex na dé mom dal jamono neex ba kenn ku nekk ñu neenu rek di jambatu waye ku jël sa mam nga delloo sa jamonoy mam ya ak ci jamonoy baay ya bo amul sens sax da nga da nga dem saytane jay la ba fo ne ya man sa baay fekk sa jamono la dimbale rek sa dalu baay sa mo la man kon yooyu yëpp ba ko waaj a waxee Ibnu Abbas ne ko damaa xaraamal sama bopp lekk ceeb mu ne ko noonoo bu ko defati demal nga kafaara sa ngëñ li loolu du dara seytaane rek moo la ko def loo kon moom noonu la noonu la fi la firi xutuwaat saabi yu borom xam-xam bu mag booba wax na génn góor gu ni sa roon di doomam foo ko mos a déggee damay rendi sama doom ji jaamu yàlla mu ne ko toppal file demal nga rendi am xar rek lii du dara lu dul min nasaxaati seytaan ci ci ci yàq ak saytaane rek la la bokk kon yàlla mu ne wa man yattabi' xutuwaati saytaani fa innahu ya'muru bil fahsaa'i wal munkari yooyu yëpp ci yooyu la bokk mu ngi ñu ciy bàyyi xel saytaane moomu nag iblis la moo am njaboot yonentu bi nee na gàngu naayam nga man ko teg ca kaw ndox ma bu xëyee xebal ay soldaaram ne dem leen ngeen tasaaroo ci àdduna bi yàqalal ma doomu aadama yii nga xam ne seen maam moo tax ma yàqule kam ca gën a fonk ca ñoom mooy koo xamee ne nii dafa fexe ba tàbbal ak nooneel ci diggante moom ak moromam buñ demee nag ba bër set buñ demee liggéey yi ba ngoon jot nga ñëw di ko rend compte kenn ku ci nekk naan ko tey faaltu kasa kasaa kasa fekk naa diggante jëkkër ak jabar ma fexe bañ ba sëy ba tas na mu ne ko waaw góor tey ma takkal la médaille kii ne ko fekk naa ñaar bokk ndey baay kenn ku ne sa morom gannaaw ne ko baax na te seen ñaari baax na yi benn baaxut ci mu ne ko is ce li nga defa baax waaw góor yow ñaari médaille laa lay takkal kii ne ko fekk naa ñaari doom yi baay yuy tibbante tànk kenn ku ci nekk ne dana liggéeyi moromam mu ne ko est-ce que li nga defa baax. mune amna ko xamne mom dama ne moom tëddandoor ak mom ca lal ba diko ko cojjal ba julli juut fajar ba muy julli julleeg suba jant bi fenk na mune ko wa gor ki ne ko amna ko xamne dafa xamne alal ma bóof ca xol ba ne ko boko joxe ñak ba joxe wut asaka waye dal ka mu ci gëna apprécier dal moy ku fexe ba ñaar ñu takalo won mu tekkale len leen to wax ne inna iblisa yad'u arshahu ala al-ma'i thumma yabxasu sarayahu فأدناهم منهم منزلة أعظم أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته ah fa yudunihi minhu wa yaqulu ni'ma anta waaw góor moom daal ki mu gën a apprécier mooy ki teqale ñaar ñu taqale woon rek moo xam diggante jëkkër ak jabar moo xam diggante baay ak waajur doomam moo xam diggante baay ak baay doom ak baay tëxam moo xam diggante nit tak mbokkam moo xam diggante nit ak dëkkandooram moo xam nit ak kam doon liggéeyloo moom daal foofa la gën a kontaanee moom la alquran ne wastafzis man istataata minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi xaylika wa rijlika waaye tamit wa sharikum fi l amwali wal am wal awlaad am na feneen fu yàlla ne foofu aaya jooju ma wax la ma ngi ci suuratul Israa aaya 64 am na feneen fu muy wax ne alam tara anna arsalna shayatina ala al kafirina ta'usuhum azza Maryama lay nekk aaya 83 boo demee fekk ko ca mu ne man maa yebal seytaane ci xéeféer yi mu leen di ñu mu leen di coojal rek mu leen di coojal ñuy buur rek loolu lépp. yàllaa ko dogal mais ba ma ko dogalee gërëmu ma ko de maa ko def mais gërëmu ma ko de Aysatu mu ne yonantu bi sallallahu alayhi wasallam génn na ca moom benn bis guddi ba mu ñëwee mu ne ko fa xirtu alayhi fa jaa fa raa ma asnau fa qaala ma laki ya aïch ya aïchatu a xirti fa qultu wa ma lii laa laa yaxaaru misli ala mislika qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam a ah, aqad jaati shaytaanuki qaalat ya rasulallahi amaiya shaytaanun qaala naam qultu wa maa kulli insanin qaala naam qultu wa maa ya ras wa maaka ya rasulallah qaala naam walakin rabbi aanani alayhi xatta aslama ki àndu yonent bi yonent bi mu ne damaa nekkoon ak Aysatu ci néeg guddi la woon ma jékki-jékki rek génn ndeke Aysatu ma ngi ca fiir parce que gis nga jigéen nii ñii mënuñu maanaam duñ gaaw nangu seen mbaax ak jëkkër lu seen jëkkër baax baax baax jàpp nañ ne bu génnee rek mën naa def naka sa doona ak jeneen jigéen waaye kuy fiire bay fiire Seydunaa Muhammad mi yàllay wattu koy bàyyi yonent bi ñëw ne ko waaw Aysatu da ngaa fiire da nga maa fiire de mu ne ko waaw waaw ak ku mel ni yow ku koy xam te du ko fiire man su ma sañoon kenn du jot ci yow mu ne ko yee eh, sa saytaane si dikkal na la de mu ne ko man damaa xam seytaane mu ne ko waaw waaw mu ne ko kon nit ku ne xam na seytaane mu ne ko waaw waaw mu ne ko ba ci yow sax da nga xamee saytaane ju ànd ak yow mu ne ko ba ci man yonantu bi waaye man nag li ma leen xëppee sens yàllaa ma dimbali ba ma mucc ca kon kenn muccut ci seytaane léeg-léeg rek mu gane si la roof la xuloo loo la nga xuloo ba saaga ku la man noonoo ku la gën yàq deru ku gën sa bàyyi. léegi léeg mu ñëw la gane si la nay loola nga nga am koo mën a dimbale boof ki sa alal ji doo ca lekk doo ca lele ba dee dem safara léegi léeg mu ñëw maanaam mer la sensé sa xarxaram bi muy yanji nga boole kook ñaaw sa sa sa sa lex yi funki laaw sa sa sa tuñ yi gondale sa bët ya xonq sa sa siddiiti tànk sa siddiiti ah, maanaam ah, baat ya taxaw bu la fekkoon nga ñaaw sa ñaawaay bi gën a dolleeku bu la fekkuton nga ñaaw sos nga ñaaway bu bes ki sa bop way way kon lolu dara jaru ko loolu lépp liggéeyab saytaane la motax kon yonent bi ne xamul kenn ci yéen ku dul yàlla wakil nako ko ci jinne ñu ne ko yaw ya rasulullahi ba ci yaw mu ne ba ci man mu ne way na yalla ma dimbale motax mu ne ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu min al jinni qalu wa iyyaka ya rasulallah qala wa iyaaya illa anna allaha aanani alayhi فاسلم فلا يامرني الا بخير لولا يونس عليه الصلاه والسلام امول كين تي ين لودول با امنا نونام تي جيني ني نكو با تي يوم ني با تي مان واي مان يالا ما ديمبالي با نوم دوما ديغال لودول لو بون مونو ما ديغال لو بون منو كو دي دارا لا منو تي مان موتاخ يالا ديغي دانكا فني افا تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا سيدكو تي كفي آية 50 بدا مدكو تي فك وخاتم والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بقرة آية 250 257 بدا مدكو تي فك شيطان nag دا فاي ay اي bu بولين gàccaalee ني ديف لو بون ba pare mu def declaration génn ci ne def loowuma leen ko woon mooy xiirtal ay ñoñam ñiy saaga di xas di njaalo di sàcc di lekk xal li jàmbur yi di saatagaay di moy di fecc ba xëy dugg safara buñ duggee safara nag ba yàlla xatte seytaane defal décla déclaration ne yàlla dafa leen a dëhaloon dëhal bu dëggu wax ko ci téeréem bi muy alquran mu yoon ni ay yonantoom yu limu ngeen wan gannaaw dëhal ba man ma ñëw dëxal leen ay ay kàcc yu duhut dara naxoo mbaay tey nag nax naa leen tey perte ngeen li laa bëggoon ci yéen maa ngi yéen yëpp safara mënu ma leen a xettali mënu leen maa xettali bu ma kenn yedd waaw waa kon déclaré bi saytaane war koo wax ëllëg dañ koo bàyyi xel alquran a ko wax di wa qaala saytaanu lama qudiya al amru inna allaha waadakum waada alxaqi wa waadtukum mu xasaf waada alxaqi foofa inna allaha waadakum waada alxaqi fii nag mu xasaf wa waadtukum waada alkadibi mu xasaf ko fa axlaftukum wa maa kaana lii alaykum min sultaanin illa an daawtukum fastajartum lii léegi nag falaa taluumunii wa luumuu anfusakum maa ana bi musriqikum wa maa antum bi musriqiya inni kafartu bi maa ashraktumuunii min qablu inna zaalimiina lahum azaabun aliim seeti ko ci Ibrahima aaya 22 dafa def lu ñuy tuddee ixtibaaq ñu jàng balaa ka ñoo ko xam mu ne ba nga xamee ne ni yàlla xatte na ca mbiram ya ان الله وعدكم وعد الحق فاي فهمنا المفاصل المفاصل في يالا دهلنا لين دهل بدغ واي نك تمو دغلكو مخصف نك مو دغلكو من ابليس ما دهل لين دهلم نين مخصف دهلم نين با دادي اندي ما سويال لين كون في حمنا ما سويال لين تي فاخلفتكم فا gannaaw ba mu ne wa waxatukum waaye xamul nag waxdal kësi bi bii nag moom xam na waxdal xaqi mais amut maanaam ma dëggal dëxal ga loolu la ñuy tuddee lixtibaat ci xam-xamu balaaqa waaye mu ne nag daal xaw ma tey benn force ci yéen man daal xoo naa leen ci ay tama xoo naa leen ci ay sabar xoo naa leen ci ay concert xoo naa leen ci ay bàkku xoo naa leen ci ay lagg xoonaa leen ci lu yàlla gërëmut ngeen wan fa gannaaw li yàlla gërëm jàkka yaa nga fa yokku wuñ dara demu leen julli ji alquran na ngeen nii kum neex jàng kenn du ca xatal kenn ngeen wan ko gannaaw penku baa ngi nii kum neex kàbbaar kenn musu ca yàqal kenn ngeen wan ko gannaaw dem di xëccoo ay concert ak fecc lu lu yàlla gërëmut tey ba ngeen dee yàlla xatte yéen ak man yépp safara falaa taluumu nii wa luumu anfusakum bu leen ma yedd yeddi leen seen bopp man nag li wér taxóor maa annaa bi musriqukum mënu ma leen a xettali wa maa antum bi bi musriqiya yéenti mënu leen maa xettali man daal li wér taxóor sax léegi jax wax ci jeex na inni kafartu bi maa asraktumuni min qablu man daal weddi sax ne mosu leen maa mosu leen maa bokkaale ci mbir mi man sama yoon nexatu ci daal laa bëgg a wax kon man weddi naa li ngeen ma doon bokkaale sama yoon nexatu ci min qablu yàlla ne gaa yi perte nañ inal xaalimin lahum azabun alim lii mooy déclare seytaane ëllëg ci kanam yàlla loo ca man dara seytaane nag noonu mu xamee ay outil yu muy jaaree ci ay pari étape dama waxoon la ko démb la muy njëkk a ci yow mooy rek weddil yàlla du ko man mu ne la bokkaaleel du ko man mu ne la duggal ci bàkkaar yu mag yi du ko man mu dox sa digganteek topp yàlla yi du ko man mu dem ba ci kanam mu lay xeebaloo yenn yu baax yi mu dem ba ci kanam mu lay defloo yenn yu fuufe yi lo xamé dañ ko sopp nga ah, comme dañ ko sopp kay té boko ko do ci jëlé benn bakkar boko défé xam ca yool man kon jëru ko mu lay yakal teel a yeewu mu lay yakal julli ji mbolo mu lay yu baax yi yoyé yépp bu ko topé top ko top ko top ko nak ba amul ci yow benn buntu bu mu ci am ci yow buntu fofu rek mom lam do am nako bu amul ci yow benen buntu nak benen yenen porte lay hubbi ha porte yi muy hubbi nak mom la lay wax ci ni dana mat juroom ñaari porte bi ci moy dafa lay rafet dafa lay rafetal neen lu bon lu xaraam mu ñëw rafetal la ko ba mel ni muy lu baax mooy tasyinul baatili ci lay ñëw moom jax-jaxal la ci ay pexe ak ci ay xor bëgg nga topp ko mu lay lëntalal mbir yu lëntut di la dugal ci ay détails di la dugal ci ay commentaire di la dugal ci ay ay ay werante yu du dara nga nekk ca ba kay yàqule moom la alquran rabbi bi maa axwaytanii لا لأسينن لهم في الأرض ولا ولأغوينهم أجمعين كوكو موي تسيين الباطل مو تي نك موي بروميير ايتاب بي موي نك خيخ ياو لو بون لو غراو لو حرام مو رافيتال لاكو با ملني لو باخ بوكو نا مو رافيتال لان نان سانغارا نلا من نكو سوبي ميو ياو كاي بو بني فيك كاي ميو سانغارا nga soppi ko ميو waay waay waay waay waay waaw ko te ngaa te gën a soppi meew mi mu gën a bëri rek nit ñi xam ne meew mi dagan ñëpp ñu gën a mën a naan meew meew luutul manquéti te kenn du ko jëndati comme que yow xam nga kartanu mën a fekk sàngara muy meew nga def ko meew kon meew mi nekk meew ko yokkal ñu ko rek mu gën a bëri ba duñ ci amati benn problème wala mu ñëw rafetal ne yow sañ nga ko wala nga toppam yambar fi mu bokk fu baax la ñu ko meññ ñu baax lañ mais jéemu ta baaxee ca baaxam nga nga ne sëtëb diw la wala doomi diw la lii muy def sañ na ko de topp yàlla ku ko maanaam mooy yàlla ku ko sañ xanaa ab kàccoor mooy yàlla ñëpp ci xem ku ko sañ def ko rek nit ku bon nga yow nag nga topp ko ca loola nangam ak nangam bu ëllëgee mën nañoo sowe déedéet wallaahi doon ki sa baay permis taxut a mën a dawal ñu bëri na ñoo xam ne seen baay yi safoor lañu woon de dee na bàyyi leen permis ba bàyyi leen oto ba waaye bu mun taxul ñu mën a dawal de. loolu jar naa baxi xel de du de doon ku du du ne ku doonu permis mën a dawal bu doon loolu ñëpp noppalu dafa bari ñu doon lu ci maam yi seen permis ya te taxul ñu mën a dawal mën naa am ñoo la jur mën naa xam ñoo jur ku la jur tous fekk da nekkut fa kon nag yooyu yëpp jar na baxi xel seytaane li muy njëkk defal mooy rafetalal la lu bon dana ñëw ne la ah, cigarette bii dara ndara newu ci demal nga tuux gisuñ ko ci alquran yax bu koy xaraamal dara newu ci. waay waay demal nga nuyu jigen ni jël jigen tek ko loxo dara newut ci liñ bañ moy nga ndialo ak mom rek nangam ak nangam demal nga jëw motax bala nga wax sa ne waay man dañ yàlla na ma yàlla baal waaye diw yow noy jéggelo door di yow da nga da nga sangu ba par door a tilim yow kay bala nga wax yalla nama yalla jéggel fay fekk nga def li nga bëgg def paré waaye xam nga man ta passé jéggelu ba paré door a bu paré nak moy goga wara jurat jéggelu foko tek yoy yëp liggéey la su ko defee kon nag tasiin la ñuy njëkk a defal su ko defee kon nag moom la alquran di wax ne dafa lay fekk lu bon mu rafetalal la ko ba nga jàpp ne loolu lu baax la moo tax alquran ne qul qul hal unabbiukum bil axsarina amalan ñan la mu ne alisina dalla saayum fi lxayaati dunia fekk wahum yaxsibuuna annahum yuxsinuuna sunaan suratul kahfi nga koy fekk ca aaya ah yaa ngi koy fekk ca aaya 104 jëm ba aaya 103 ba 104 boo demee da nga ko ci fekk kon loolu baaxut loolu baaxut mooy première gim lay rafetal ñaareel bi mooy tasmiyatul maasi bi asmaai bi asmaa muhabbaba mooy ak mooy yàlla lay jël soppi la tur ya te fekk jëmm ja moom ma nga fa rek xam nga mooy yàlla buñ ko xoddee ba mu rafet ñi déggisi ko terewul lam doon la doon rek waaye day fekk ak mooy yàlla gu wat mu soppi la tur ya xam nga tey ñaataa fi la ñaataa fi màndal te duñ ko nangoo tudd sàngara xam na fi tey loo xam ne boo ko naanee màndi waaye ñu ne non du sàngara duñ benn xam na loo xam ne boo ko tuxee màndi ñu ne non du dorog indil nañ ko yeneen i tur yeneen i tur yooyu ci la carte yi bokk xam nga carte moom boo tegee ma teg rek am ku gañe am ñu perte rek carte dugg na waaye da ngay ñëw tuddee ko naneen tuddee ko tur yu tur yu kenn xamut. tur yoy ak ma fas ya don daw xaw ma tuddati legi carte gu goga da lañ ko tuddé loterie nationale lañ ko tuddé takam takam lañ ko tuddé manam pays mi mu ngok pays mi moo doon tur wa danañ ko tuddé loterie nationale ba ko waa as bàyyi ndeysaanam param xam-xam bu mag bobu ne ko señ as malay laaj waa nationale mom dagan naam dafa haram, mu ne ko bëgn na loterie rek la haram nationale gi da koy guddal jërul nationale bu ko ci dolleeti ne loterie rek mag ñi kenn du ñom kon dañuy day ñoom saytaan yi day ñëw fekk lu xaraam ba pare carrément mu soppi tur wañ ko xamaloon indil ko yeneen tur yu dul ñoom nga nga euh, xiirtal la nga koy jëfandikoo bu ñu waxee nga ne non bii du booba du jeex loolu xam na ci jigéen ñi ñuy takk ci sëy yi loolu xam na ci sàngara si ñuy naan loolu xam na ci cigarette bi ñuy tux loolu xam na ci yëre yi ñuy sol euh, xam nga tey boo xoolee ci réew ñu bari li ñuy sol tabaarakallaahu boo ci génnee yëree góor jigéen rek mu jeex moo tax ku ci néew tamit yaa système bi te doo ko yëg soo la yoo xam ne dafay markel sa yaram wi ni mu toll markel sa awra bi ni mu toll léeg-léeg xale bu góor taxaw da ngay laaj yow tànkam yi ndax xaj na ci tànku jiinam bi ni mu xatee ma ne ko noo def ba dugal ko ci sama dafa may jaaxal yooyu yëpp fekk maanaam système la ci góor jigéen gi rek phénomène la boo xam ne néexut a mucc yenn buddi yi ngay sol mu markel la lépp su ko defee ngi tuddee ko yeneen i tur. su ko defee nga nekk cay lagar-lagar rek na seytaane ñëwee woon euh, rafetal suñ maam Adama euh, sajaratul xuld la ko tuddee yàlla ne ko wala baa haadihi sajarata bu leen jege garab gii mu ñëw moom tuddee garab ga neneen ne ko hal adulluka ala sajaratil xuldi wa mulkin laa yabla ah mu ne ko ak sajaratul xuldi mu ne ko ay waaw garab gii boo ko lekkee dootoo deexati dootoo folleekooti yàlla mii kenn defut ko yàlla moo xëy nekk di yàlla waaw lu xëy nekk nee na teg dafa am lu fu mu jaar garab gi la lekk moo tax mu nekk di yàlla te dootul deeati ah mu ne dugg aljana ak xéewal yi nag li muy neex neex ah nekk ci teraanga jodut folleekooti mandat bu yeex nga nañ ma yokkal beneen mandat yooya ko dàq fuuf su ko defee nag moo tax doomu aadama ku ko fiir ci ñaar jàpp ko ci mooy nguur ak ak ak béel bañ a dee ci la iblis fi fiir suñ maam aadama ne ko hal adulluka ala sagaratil xuldi te kat sagaratul xuldi googa moo ko rafetal te mooy wala taqaraba haadi sagarata foofa xamul xuldi moom mu ñëw rafetalal ko tur bi xam lu mu dagg xam lu mu yokk wàññi ca su ko defee eh, aadama ne kon kay dara nekku ci commencé rek fa akala minha fa badal lahuma sawaatuhuma loo ca man loola ñëw fekk si ko kon day ñëw maanaam tasmiyatul maasi bi asmaa muhabbaba la lay def loo doo ca man dara ñaareel bi tamit mooy tasmiyatu taaati bi asmaa mu nafira mooy topp yàlla gi topp yàlla gi ñu yàlla sant lay ñëw tuddee ay tur yoo xam ne dafa lay foñloo tur ya mooy beese waaye fekk na dara soppeekuwut waaye tur wu beese wi rek mooy ñëw mu dugal tàbbal ca xolu ñaan nga ne ah non kullu bidaatin dalaala wa kullu bidaatin maanaam kullu muhdasatin bidaa wa kullu bidaatin dalaala wa kullu dalaalatin fi naar loolu mën naa cee tudd lu bari la muy ñëw mooy dañoo tàbbal ki sa xol bi ne la wasifa nga ne non wasifa mooy lan maa hiyal wasifatu ah wasifa moom nekkutoon luñ xam ke jamono yonantu ba ndekketoo turwee soppeeku rek fekk su wasifa du dara lu dul mbooloo mu degg ci tudd yàlla rek amul leneen tudduñ seen baay tudduñ seen sëriñ tudduñ seen sëriñam sëriñ ba su ko defee dañoo doon tudd yàlla rek nga ne ah wasifa xamuñ ko lam takun maarufa su ko defee na nga nga weddi ko dal ca kaw ñoo nga sam sa mbokk judduñ ngay xas ñu ne la waaw léegi kat dañ lay xool lan la nga ne wirdo ma ma maa huwal wirdu lan mooy wirdo waay waaye fekk boo laajoon ndeke tur beese rek seytaane mooy def loolu moo ñuy indil tur yu bees yi ci ak topp yàlla tur yoo xam ne dafa lay foñloo yow mi xamut. fekk na buñ la buñ la ko leeraloon ne ah ndeke wirdu du dara di lu dul astaghfirullah rek salaatu la nabi laa ilaha illallah ndeke lii rek kay wirdo di. waaye non dafa la indi yow rek yow boobaa yow jëmmi tur wa ngay xool rek waaye doo xool la tur wa ëmb nga jaaree ca saaga ñoo warta saaga bañ ñoo xam ne ñoo la gën nga xas leen bind ca téere dee dem safara te loolu baaxul ndax bañ sa borom moom jullit la waa gi ñëw xool na la waaye nañ dajee jàng xasaayid nga ne maa maa yiyal xasaayidu luy xasaayid yi ndeketoo ndey du dara lu dul dajee tagg yonantu bi dajee maanaam jàng suñ diine dajee maanaam jàng suñ taw tawhid loolu rek la mag ngi def seen xasaay de xamul leneen lu ca ne waaye tur wa nag moom lañ lay indil nga xool kaw tur wa doo xam la ca biir jaaree ca daw loola demeet loola mën nga caa tudd lu bëree bëree bëree bëree bëri lu dul jeex waaye boo fi nekk na kat lu lu yonantu bi waxutoon wala maanaam gisu mu ngi def ko ci jamono yonantu bi man duma ko def yonantu bi nekkutoon dictionnaire boo xam ne dafay peeg mbooleem jëf yi. nekkutoon tamit dictionnaire boo xam ne dañ cay peeg mbooleem waxam yi déedéet loolu njuumte bu rëy rëy la loolu njuumte bu rëy rëy la loolu wax ko bëgg ko caa tënk ñàkk xam rek la kon dañ ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax lépp loo gis mu am sëslaay rek xadis bi wax ne man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun ay mardudun alayhi waaye la nga cay déggee nag mooy ci mafhumul muxaalafa mi mooy man ahdasa fi amrina haasa maa laysa minhu fa huwa raddun kon wa maa huwa minhu nag lu ca bokk kon nag kooku kenn du la ko delloo loolu moo cay loolu nag foofu la wax ja génnee te xadis boobu nag moo ñëw tax taxsiisal xadisam kullu bit bid'a kooku xaam la. waaye dañ koo taxsiisale ci beneen aaya beneen kon xadis xadis bi ko taxsiisal mooy man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun waaye boo jàngee rek kullu madusatin bidaha wa kullu bidahatin dalala wa kullu dalalatin fi naar te boole woo koog xadisa man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu doo ko dégg bee aam la mais dafa ñu bii dafa ñëw taxsiisal aam ji woo nag da fokk nga jàng usul mooy tax nga mën a dégg wax yonantu bi ak bagage yooyu nga xam ne moom lay laaj kon loolu lu bëree bëree bëree bëri la nañ ci bàyyi xel bul defati loo gisut ne rek xamut boo ko defee daanu boo ko defee rek daanu boo ko defee rek daanu nañ ci bàyyi xel loolu lépp saytaane mooy ñëw tur ya mu ñëw beeseel ñi ay tur su ko defee tamit nag fekk loola dara nekku te lu baax rek la mu mu mu bon loola ko wan la ko gannaaw ah, mooy rek la gaaya nit haat ña waxoon seen yonantu ba di huut ne ko naa la naraaka fi safahatin wa inna la naxunnaka min alkathibin salla ara suratu maanaam aya 66 ne ko yow liñ liis na ngaa dese rek moo tax barina na ku yore kurus nga ne ko da ngaa dese bëri na kuy dem di wasifa ji mbaa muy jànge ay xasaayit mbaa muy defi nangam mbaa muy gàmmu ji di màggal yonent bi nga ne ko da ngaa dese te li ngay def ci lu baax lépp mi ngi koy def te ma ngay def lu baax loo defut parce que ku ko du la gañe ndax kon du la gën a gañe kon nag inaa la naraaka fi safaatin jooja jar na baxi xel loola ñuy waxoon yonentu yàlla Huud moom la gaa yi tey di ko wax gaa yi rek naan dañoo jàpp ne yéen da ngeen a dese ndax dañ laa njort nga bokk ca kat ci kat ya Cheikh al Islam Haji Ibrahim daan wax ne baxi leen leen wahum fil inkaar wa nahnu fil askar nañ leen baxi ñiy weddi rek ñun ñuy sikkar rek boo liggéey ñu fay leen seen weddi fay ñu suñ sikkar ya mbaa kon duñ leen daani waaye tamit la gaay a waxoon tabaarakallaahu yonentu yàlla euh, euh, Muusa ak magam ja Haaruna ne qaalu in haadaani la la saaxiraani yuridaani an yuxrijaakum min ardikum bi sixrihima xam ñu jàng in in haadaani ñu jàng inna haadaani ndax boo boo jàngee in ji dangay jàppoon ne kon kat dafa war a dafa war a dafa war a dafa war a nasab gi ndax inna haazayni nga doon déglu mu ne inna haazaani waaye dafa xam ci langue arabe xeet woo xam ne tasniyaay lisim léppam ca alif jëla ca rafaa ga ca nasab ga ca xafat ga yëpp moom nga dégg saaxir ba ne inna abaha wa aba abaha xad balaga fil majdi gaayataaha waxut ne inna abaha wa aba abiha xaat bala xaa fil mbajji xaaya tay déedéet loolu xaat la xeet la ci maanaam ci nit ci langue arab ñoo xam ne tey seen xeet wa noonu la ñu ne nag aaya ji dafa wàccee ca langi woowa moo tax mu ne xaalu inna haadaani ñenn ña bëgg koo lay ne déedéet in la in haadaani su boobaa damiru sënu la mooy kaaloo ñu ne innahu naka lay mbir in naka lay mbir tey mbir haadaani la saahiraani ñaar gi ñaari njabarkat lañ kon alquran dafa yaatu su ko defee kon nag yi nekkoon ci yoon lañ taxaw ne ñoom ay njabarkat lañ ndeke na ñoo nekk ca yoon wa ña leen doon tuumaal ñoo nekkul ca biir bëri na kuy tuumaal sa mbokkam julit fekk sa mbokkam julit ma ngay tuumaal man ngi ca digg yoon wa yow yaa wàcc yoon da nga koo yëgul rek yaa ko yëgul rek kon nag kon tuumaal nañ yonentu yàlla Huud te fekk moo nekk ca yoon wa tuumaal nañ yonentu yàlla Muusa ak Haaruna ak njabar fekk ñoo nekk ca yoon wa te dañ cee xamul dara waaw kon nag tuumaal nañ tamit tabaarakallaahu ah suñu yonentu bu tedd bii gaa yi ko doon lu ñu wax wa qaala zaalimuuna in tattabi'una illa rajulan masxuuran suratu furqaan ay huit te pourtant yonentu mi ne ñu ne kuñ jabar la nekkul ci yoon moo nekkoon ca yoon wa ña ko doon ña ko doon contre yàqule nañ kon lu bëri noonu la demee te lépp du dara liggéeyab saytaane rek mooy jël ay tur yu bees ci jaamu yàlla gile di ko ca dugal nit ña di ko tuddee seeni mbir fekk na jaamu yàlla googaag la fi yonentu bàyyi dara soppeekuwul ca tur yaa soppeeku rek mu jël taxaw ne la kii ngay gis ibaadu la nga nga ne ah kon deke mak mom bokku ñu yoon kon ki kay de ko tere dem safara yang koy bonal fek fek fek fàtte nga wa ibadur rahman alladina yamshuna ala al ardi hawnan mu jël ki ne la shi'ala boo defee timit nga ne ah non kii kay maa ngi moom ñu yoon euh, dexe ko tere dem safara moom ti mu jël na la kii di suufi yu la mbiram affaire yi tariqa lay dund yow tamit nga ne ñii dañoo xëppal ba yokku ci diina gi lu ca bokkut nangam ak nangam dexe ko tere dem safara yow mu lay jay nag nga ne man de maa ngi bokk ci ahlul ahlu sunnati wal jamaa mu tasawifu ne boo leen génnee ci ëllu sunna wal jamaa kon ahlu sunna wal jamaa jeex Seexu Tijaan bañ koy limal karaamaam ya luñ ko njëkk limal topp sunna dund na ba génn àdduna mos ta teggi tànkam ci sunna njabot gi mi yar sax musuñu tegg sen tànk ci sunna waaw ba koy limal karaama yi wa min zaaka ittiba'u li sunna wa hiya lana rijaali khayrun minna la ibnu baba wax waaye nekkut fa di ko limal karaama yoo xam ne mën naa am sa picc yi man nañ ko mën naa am sa jamaadaat yi man nañ ko mën naa am maanaam xayawaan yi man nañ ko déedéet dafa ko limal ja karaama bi nga xam ne nit maanaam jamaat mënu ko nabaat mënut ko xayawaan mënut ko te na doom aadama yu bëri muy topp sunu su yonent bi sa alayhi wa sallam te bopp bépp ak xiiw rek mu ngi topp sunu kon loolu liggéeyam seytaane la nañ ci bàyyi xel waaye boo jàppoon ne kii ñu ne Cheikh sama mbokkam jullit la xam nañ fu ñu wutee xam nañ fu ñu dajee kii ñuy tuddee Ibaadu Rahmaan kii ñu naan salafi salafiste la kii ñu ne maanaam mutasawif la ñëpp ashadu an laa ilaha illallah moo leen boole ci diina ji ñi ngi julli julli juróom yi ñi ngi war weeru koor ñi ngi joxe asaka ñi ngi haji màkka ñi ngi jokk bokk ñi ngi jàng alquran bu ko defee nag la leen wuutale ay détails yu ñàkk solo yoo xam ne yàqu dara ci diina ji ay furoo rek la waaye seytaane ñëw boof sa xol bi jox la tur wu bees wa ba doo gisati la tur wu ëmb nga nekk ca loola di ca lagar lagari dee dem safara loolu dara jëru ko kon loolu lepp ñi bàyyi ko ci xel liggéeyab saytaane la benen bi ci tegu nak moy dafa lay feñalal ak lahi bir shaytané taxaw né dama lay lahi bir sol mbubam ku lay lahi bir man na nek sax sa bay fekk ndeketoo dafa lay yakal wala mu sol mbubam lahi bir nek sa xarit wala mu sol mbubam lahi bir nek sa sa mbokk fekketoo ndeke laayi biir ga boo ci biiram rek ngay mujj da ngay mujj rek torox moom kat la iblis defoon ba muy bëgg a yàqal suñ maam aadama dafa soloon mbubbam laayi biir laayi biir ga ximul ci sax dafa gëñ wa qaasamahuma inni lakuma la min an naasixiina la ko yàlla ne bàyyi leen seytaane boo leen toppee discours am yu rafet yi niroog discours politiciens yi rek ñu sànq leen yaa bani aadama laa na ko yaftinanakumu seytaanu kama axrajaka abawaykum minal jannati laaraaf aaya vingt sept boo demee da ko ci fekk kon dugg ci buntab laahi biir boo xam ne laahi biir ga la làmboo lépp biiram moo ca ne waaye yow sa biir ne lu ca dara boo ko toppee rek surax loolu tamit dafa bëri ci liggéeyab seytaane gu muy defloo ak njabootam nga nekk ca ba beneen bi tamit mooy ta tadarruj fil idlaal mooy taxañu rek ci ak réer iblis dana ñëw maanaam bëgg a sànq jaam bi xam ne du jàpp du ñëw jàpp ci loxo ba rek di ko sànni naan ko defal nangam wala moyal nangam wala maanaam defal nangam ak nangam mais ci biir la muy topp la koy la koy yàqalee ci biir lam la muy def ca la cay dugalee lu ca bokkut fexe ba génn ca lu ca bokk waaye jaaree ca yàqule kooku nag moo mooy firi aayaab dëgg-dëgg laa tattabiu xutuwaati shaytaani Qurtubi wax na ko ca tafsiram ba ci wax ju mel noona lu bëree bëree bëri dugal na ko ca kon yii la yëpp dafa bokk ci yoonu saytaan yi ba ci sa bakkan bi li nga xam ne da nga koo bëgg sopp ko li nga bëgg carrément ca la lay ca lay ca lay ba yàqal ndax li nga bëgg la lay ba dugal la moom ci lim bëgg موي مانام موم سيطاني درايا بالنفس البصرية ماذا تحب وماذا تكره وما الذي يؤثر فيها وما الذي لا يؤثر فيها ولذلك فهو يستخدم هذا الأسلوب في الدخول إلى النفس البشرية الله هو الدخول إليها من أحب الأشياء إليها فإذا ما وجد نفسا أمارة بسوء مطاوعة له كانت عونا له في إدلال صاحبها loolu la Ibnul Qayyim mi wax noonu lay def dafay seet li nga bëgg mu jaaree ca di la ca xirtal jaaree ca lii la nga bëgg ba nga ba nga ba nga xëppal ca ja jàppee ko noo xam ne mën naa dem ba loola nga bëgg sax soppeeku di sa yàlla mooy danañoo fekk na sa jabar jii moo la tere nelaw mu jël sa jabar ji mu am placement ci sa xol placé ko ci moom seytaane cër ba mu ca am yàlla xamul ko ci yow mu jël sa doom. placé ko ci sa xol cër boo xam ne yàlla xamul ko ci sa sa xol bi jël sa mbokk mi jël ci ki nga xam ne da ngay dem di ko dunguru mu nekk am milliardaire nga foog ne mën na laa jariñ yooye lay jël li nga bëgg lay jaare dem di ko jox cër ci sa xol bi bari yàlla mi ko moomoon amatul ca benn cër yàlla mu ji xëy gental gental xol ba loolu day am te loolu nag kenn ku ne mën na ci xàtte boppam. juróom-ñaareel ba mooy al isti'anatu bi shayatinil insi dafay fexe mu mel ne da ngaa lott li la tu bi indil efficace ut mu lay ne demal nga dimbali koo saytaane yi ah, maanaam saytaane jinne yi ak yu nit ñi ci lii nga bëgg nga bëgg a def boo ko defee ci ngay bëgg a def dugal la ci xeeti njabar duggal la ci yenn yu kenn xamut naan la nangam boo ko bëggee muy xisnu boo xam ne làmmeñ ak cet ak ak gudd fan danga ko xam ku la liggéey nangam ak nangam demal nga fexe ba takk yaxab jinne ba demal nga fexe ba ba ba ba takk béjjën ab kàkkataar ba demal maanaam nga fexe ba sol ca nangam ak nangam ñu bindal la ca yu kenn xamut kuréel jinne yoo xam ne kenn xamut li muy tekki nga nekk ca di ko lagar lagaree tabaarakalaaw foo ne loolu moo lay dimbale boo bëggee gi dem fenn sax ne fàtte naa sama gàllaaj yu dëppaat man kay tay lii nangam ak nangam yàlla ne innahu laysa lahu sultaanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluuna waaye wa inna shaytaana la yuuxuuna ila awliyaihim li yujaadilukum jooje suratul an'am ca 121 loola tamit dafa ciy am mooy dimbandikoo la ci loo xam ne xamul benn njariñ nga gëm ko di ca lagar fàttee gannaaw ne man tay yakule na luma dal tay mako sama bop ya, dama fa sama gàllaaj dama fa sama nangam mu nek ca lola nga diko ko lo, di ko dëgërloo ba xëy yakal la kon da la waja waxon rek moy li am solo inni aqafu min ad dalali wa inni amshi ala nahji habibi muhammadi araftu nafsi ani dunya wa sinataha su ko defé nak waraqibtu raxibtu fi ma inda rabbil amjadi boko defé am jamm su ko defee nag beneen bi moy tabal ay leunt leunt ci sa xel mi rek ci sa pass pass bi rek lo xamé ni da fay dafay da fay naqaree saxal nga nek ci loola di ci sik lo def andi sik yonent bi da naka wax yaati shaytanu ahadakum fa yaqulu man qalaqa kaza man qalaqa kaza xatta yaqula man xalaqa rabbuka man xalaqa rabbaka fa ida balagahu fal yastaid billaahi waliyantahi seytaane day ñëw di travailler sa xel mi di la xelaat loo xelaat yu xóot ba nga xëy dugg ci xelaat yu xóot yoo xam ne doo ca mën a génnati da nga toog ne ku bind sama baay yàlla ku bind sama jabar ji yàlla ku bind asamaan ci yàlla nga dema dem ba ci kanam mais yàlla moom ku ko bind yàlla kay boo ko saxalee rek bind rek yow xal xal ku nga waaye yàlla moomu ko ko xamal yàlla moomu nangam dugg ca yooya yooyu détail yu xóotal yooya ba xëy dugg ci kàmb goo xam ne dootu ci dootu ci mën a génn yonentu bee ko wax mu ne seytaane dana dikkal kenn ci yéen di ko wax loo ku bind nangam ku bind nangam ba ci kanam mu ne ko waaw kan moo bind sa borom ku bind yàlla moom mu ne loolu nag bu sa nit ki xeggee rek na wax na muslu yàlla xam ne seytaane mi ngi koy gaje loolu dafa bëri kon yooya yëpp dafay am yàqal la foo xam ne dootoo ca mën a dootoo dootoo dootoo ca mën a génnati kon yooyu taxoon saxaba yi daan ko daw subuhaat yooyu ku ko ci mos a am problème rek ñëw tawat ko yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy médecin wu médecin yi mu mën la caa dimbale aw nit ñëw nañ ci saxaba yi di laaj yonantu bi ne ko inna najidu fi anfusina maa yata'azamu ahaduna an yata an yatakallamu bihi aw qad wajadtumuhu qaalu naam قال ذلك صريح الايمان مونيكو نون دال ليك ليك سوني بكان دا نان سي ييك اك سوني خلات لو خامني دا فا ري با نيم هون كو واخ يونتو بنا يول يدان كو ييك ني نكو واو واو بوني لول نك موي گم يالا گومات سك واي بوكو واخي رك ولا nga كي كو رك دوند كو رك ياقولي داي ام ليك ليك شيطان دغ سا قلبي خلات لولا لو بون تي يونتو بي خلات لولا لو بون كي سا سيرين خلات لولا لو بون كي ساي واجور خلات لولا لو بون كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم xalaat loola lu bon ci yàlla mi fi indi mbindeef fi ngay toog loola di ko xalaat yàlla lii yàlla lii yàlla lii bay xëy ne kàmbu ba ci xëy ne mëlëb ci kàmb ak safara moo tax yoon dafa daan wax ne tafakkaru fi xalqillaahi wala tafakkaru fi saatihi fa tahliko dee leen xalaat ci lu yàlla bind waaye bu ngeen bëggee xalaat ci jëmm yàlla jar da ngeen mujj xal ko juróom-ñeenteel ba nag mooy alqinaaw wal musiqa seytaane dana ñëw tamit di la xirtalal di la rafetalal musique di la rek. ah non musique bi dara nekkut ci nga nekk fan ak dugg ca détail ya ah, moom kay comme musique bi li muy wax dafay way ak njàmbaar dafay xiirtal nit ñi bëgg seen réew dafay xiirtal nit ñi ci xam jom waaye bu ñu ko defee ànd naag ay balambata yeeg riite yaag ndënd yaak góor ñaak jigéen di ko fekkee jaxasoo man ta baaxati donte la ñuy wax baax na su boobaa la koo kay kay na wax lu baax loola te bañ caa boole matériel yooya bu ca bëggee génn waaye bu xasee dugg ca yooya bagage rek seytaane moom xas na wàll si. su ko defé amna ki ño xamné tay deglu hal musique moo leen gënal deglu alquran poste buñu japp bu jappé alquran ñu toxal buñu yoré sen télévision bi conférence buñu dajé sappé ko wayé nak buñu dajé ak musique rek tabarakallah nak doora wax nak man nak maa ngi door a dajeeg la set nak seet li nga doon seet sa tané la kon lolu liggéey setan la rafetal la musique ñaar lañ yo xamné ne wahuma tariqaani yufsidu shaytana bihima yufsidu shaytanu bihima alquluba ci lay seytaane yi jaaree di yàq xol yi di maanaam gental bakkan yi ibnul qayim wax na ko nee na wa min makaidi aduwillaahi wa masaidihi allati kaada biha min maanaam min qablu ah, bu ko defee di maanaam kaada biha man qalla nasibuhu min al ilmi wal aqli wad diin wa saada biha quluba al jahilina wal آه لولا لان من ماي سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة التي الذي يسد القلوب بها من يكون بكون شيء بخير شيطان أكي أي ربم يو كم ندا كوي بخير يسين ترني وشي كم كم أكي كل أكي دينه مربو شيء قلو يو سجن يعني أكو كديا ما يدغلو ميسك أكي أي تاتشو أكي أي لغ أكي أي لكان كمود ak ci jumtukaay yoo xam ne dañ ko ciy boole mu nekk lu xaraam euh, ñu ko cay def nga xam ne ci jamono yonantu bi sax la la la la aaya ja wàccoon ci wàllu saytaaneeg wàllu misik booba ba yàll ne ya maanaam yaidukum wa yumannihim wa maa yaiduhum saytaanu illa gurura waaye tamit gis nga ko fële Euh, xaaris moom nga xam ne moo daan andi naan yonent bi asaatirul na lay wax rek waaye man maa ngi leen di woo ne euh, ñëw leen ci euh, lëhwal xadiis loolu laa bëgg ngeen ñëw yàlla ne bàyyi leen fi lëhwal xadis dem toppi axsanal xadis axsanal xadis nag mooy alquran lëhwal xadis nag mooy maanaam misig yéeg lépp lu soqeekoo ca loola ñiy tëgg ko fecci ak noo ko mën a tuddee ca tur ya rek dugg na ca yooyu yëpp lu bon la liggéeyab seytaane la moo ñu ciy xiirtal su ko defee kon nag loolu nañ ko bàyyi bu baax a baax a baax kon yii yëpp dana ñëw dëxal la lu bëri tamit euh, ci di la mbébét loo lu mënta nekk rek dana la mbébét loo gudd fan mbébét loo la koom-koom mbébét loo la yàgg fi mbébét loo la jàmm mébal loola nangam nga topp loola ba koy say ba koy yàqu moom la alquran wa id zayyana lahum shaytaanu amalahum wa qaala laa gaaliba lakum alyawma min annaasi wa inni jaarun lakum falamma taraat alfi'ataani falamma taraat alfi'ataani nakasa ala aqbayhi wa qaala inni bari'un minka ndax inni ara ma la tarawna inni axaafu llaha wallahu saddul iqaab sadatul anfaal aaya 48 boo demee da nga ko ca fekk yàlla ne araayta alladi kafara bi ayatina wa qaala la maalan wa waladaa loolu tamit dana ci am atalaa al xayba am ittaxada inda rahmaani ahdan kallaa sa naktubu maa yaqulu wa namuddu lahu min al azaabi madda wa narisuhu maa yaqulu wa yaatinaa farda seeti comme Mariama ayatu aya 77 boo demee fekk ca loola. kon yii la yëpp saytaane nag ko gis mu jekku ñaareel rek mi ngi koy jekkoo ci ñaa ci ci jumtukaay yi jumtukaay bi ci njëkk mooy réer réer moom boo ko xasee def rek. xam-xam nekkut ci yow ndax nit ko xamul xam-xam mooy nit ku lëndëm place bu lëndëmee nag seytaan yi day ñëw dugg fa moo tax yàlla ne qul hal unabbiukum bil axsarina amalan alladina dalla saayuhum fi lxayaati dunia wa hum yaxsibuuna annahum yuxsinuuna sunaan ndax saa yoo sànkoo ci riir rek da nga dem fekk lu bon nga jàpp ne lu baax la di ca sonn moo tax riir baaxut gis nga bëri na ku dugg ci kàmbu alkande la ko ca dugal yëpp réer la bëri na koy tux réer a ko ci dugal bëri na koy naan sàngara réer ko ci dugal bëri na koy dorogewu réer a ko ci dugal xataa góor jigéen sax am na ko am na ñu ko def ñoo xam ne réer rek moo leen ci dugal kon réer baaxut mbooleem xeeti jàngoro yi ba ca gën a garaaw mooy réer seytaane nag ñaareel yi ma waxoon yëpp bala koo mën a def ci yow rek day fekk nga nekk nit ku réer bu réeree rek yow yaay yow yaay mbalak ak Gokam goo ne ci lay mëna jaaré ci yow ba lim bëgg lepp mën ko def motax sha'ir bané wa fil jahli qabla al mawti mawtun li ahlihi billahi rir dee ci boromam jëk muy dé fa ajsaamuhum qabla al qubur quburu kep ku dé bala nga dugg ci sa bammel yow duggon nga ci sa bammel tegon nga sa bop ba pare fekk go kon nak rir baxut lu nit man ci jang ba mëna gindé ku ci rir jar bu la dugal ci sa doomi ñi jang ñaarel bi mooy mer seytaane léeg-léeg dafa lay xiirtal ci mer parce que xam na ne feeg meragoo yu bari doo ko mën a def merey tax nga fase sa jabar ji merey tax nga saaga sa baay merey tax nga bañ sa mbokk merey tax nga xas sa dëkkandoor moo tax benn saxaabi yu dafa bàyyee koo fu sori ñëw ci yonent bi ne ko dénk ma yonent bi ne ko benn baat rek laa lay dénk laa tax dab mu ne ko dénk ma mu ne ko laa tax dab waja foog denkul ko dara bam dina ba ci kanam nak mu doora a ne ne de ke man dal mer la ma bul mer waxon de ke to kambu musiba yep mera cay tabal nit. mera tax nga fasé sa jabar dem ba ci kanam ne on pourtant koy fasé ma meron rek de man la mos nga gis ku mera ku fasé jabar ta merut tegal la ci bi nga lek ba sur nan ataya ji nan sa sa bi sa fut sukar nan ku mera na la ko musuko deg fasé na la mukk ci mer rek lay fasé de noonoo añaanante bañante yëpp ci ci mer rek mer baaxut kon nag mer nañ koy moytandiku mooy kàmb ak musiba seytaane moo cay jaaree xonqal sa bët yi mu xonq cor ji ni bët yu xonq yi bëree bu la saytaane gën sa bët yi foo jëm mbaa doo seeti oftalma ba naka noonu mu ñëw taxawal sa siddiiti baat yi mu taxaw mel ni ay xet mu jàllar funkil sa tuñ yi mu mel ni sàmburaaya buñ buñ buñ buñ buñ wal jël sa lex yi maanaam ndewil ko yow kay ñaaw nga ba pare même boo ñaawutoon ñaaw nga boo ñaawoon na gën ngaa ñaawati ñaawaay bi dara jaru ko kenn waru cee mel ci yàlla moo tax booy mer na fekk euh, nga mer ci wàllu yàlla waaye boo ko meree ngir sa jabar manqué nga nga mer ngir sa mbokk manqué nga nga mer ngir sa doom manqué nga booy mer rek na fekk ñu xotti xormaay yàlla xormaay yonent bi xormaay sharia waaye nag fi seytaanee jaaree yàqal nit ki bokk na ci bëgg àdduna bëgg àdduna nag mboolem xeeti mbon yi bëgg àdduna mooy seen seef nit bu capable ci bëgg àdduna dana njabar nit dana fenal nit bëgg daraja dana xañaane nit dana sàcc nit dana def lu bon lu nekk moom daal fekk xeggagoo ci kàmb bëgg àdduna rek sa sa mbon des na bëgg àdduna moom mooy su kulli xati atin i'lamu annama alxayaatu dunia laibun wa lahun wa zinatun wa tafaaxurun baynakum wal awlaadi ko loolu nag kon du dara te loolu naa la ko ñeenti étape yi àdduna am kon àdduna ngoog boo ko toppee rek don yonentu naa yàgg mu ne taisa abdu diyaar taisa abdu dinaari wa dirhami wal qatifati wal xamisati in uutiya radiya wa in lam yuuta lam yarda yonentu bi ne torox na koo xam ne du jaamab yàlla mais jaamab dollar la wala muy jaamu euro wala muy jaam ab CFA fu ko xaalis fekk jënd ko kuy jaay rekk la ak a bëri ci politiciens yi moom daal bëri na ci borom discours yu rafet wax ja bëri waaye ndeketoo dafa bëgg a yokk prime rek bu demee ba yëg na fu mu ni nii passé na prime million mais fu mu ne nii milliard koy jënd mu jaay boppam jaayaale nga ca gannaawam yépp ak a bëri kooka yonentu bi abdu diinaar la ko tuddee ak abdu dirham yi koo xam ne foo xendu xaalis moo la fa bax foo fanaan xaalis la bax prix nga nit kuy jaay rek nga wala yëre yu rafet moo la fa bàyyi wala lu ñuy war a lekk rek moo la fa bàyyi ku la jox nga gërëm ko tagg ko ba taggal ko ay maamam ku la joxut nga xas ko yonent bi nee na yaay ki gën a bon ci nit ñi yow dootoo abdullahi mais abdu dinaar nga abdu dirham nga te loolu dafa bëri am na ñoo xam ne abdul 4-4 lañ maanaam euh, jaamab 4 lañ moo leen moo leen tere nelaw ñii maanaam abdul xasr lañ étage xusuur yi lañ bëgg étage yi rek bu maanaam boo leen teree nelaw foo leen ko dëxalee baa nga jox leen ay terrain rek jaay seen bopp xam nga ñooñu nit ñu bon lañ ñu yàq société bi lañ waaye beneen bi nag seytaane dana lay mën a yàqal boo xiree nit bu xiree rek ah, am problème ndax loo xam xeeb ko loo xamante doo ko gis waaye nit ku xirut bëggewut dana dana naqaree daane ku doylu tey bala laa nit a fiir balay jàpp dana sonn. waaye ki gën a bon ci àdduna bi mooy nit ku doylu wut loo xam xeeb nga ko loo xam ne la ca kanam su boobaa li nga am dootoo ko gisati ñen yeneen lañ gis rek ngay xam su boobaa yow dootoo reggati yaag njanaaw yi yéen a xam yaag maanaam wuxuus yi euh, maanaam euh, rabi àll yi ndegment yi ci àll bi yéen a xam kon loolu baaxut moo tax yonent afam laysa al xinaa an kasrati al aradi walakin al xinaa xina nafsi hadis la bopp muttafaqun alayhi buxaari yoog muslim yëpp ñoo bokk indi hadith bi ne kom koom-koom duhut bëri marchandise hut bari ay keur waye kom kom pire mooy doylu bakan sha'ir bané ne al-hirsa ala ad dunya fa fi l-ayshi fala tatma'u wala tajma'a min al-maali fama tadri liman tajma'u mu ne baxil dagale ci xalal ji xamoo koo koy dagaleel léegi nga deg bahi ko fi fa in risqa maqsum wa su'u zanni la yanfa'u kon nak li mo ci baye xel sha'ir bi wax ko muy lu ama am solo waaye beneen bi ci tegu tamit mooy dana yàqale ni ki jaaree ko ci nay boo ko joxee ñàkk boo ko jox dootul demati ngay dem di joxe mu ne kii nim la bañee lu tax nga koy jox moo tax yàlla ne asseytaanu yaidukumul faqra wa yamurukum bil faxsaayi kon nay dana dana dana dana dem yàqal nit ki waaye boo gëmee ne kat loo joxe rek tabaarakallaahu da nga amaan la lu xëpp loola te loo joxewut loo bañ a ñàkk joxe ko na daan yonent bi def soo ko defee rek am jàmm xam naa waxtu wi daal gudd na waxtaan wi gudd na lool dama lay bàyyi rek ba subaat ci waxtu wi nag eh, yaa ayyuhaa ji ma la dëxaloon nag nga xam ne man ke tu nuur ba tey rek nekk ni daawu saamin wa xamsuun sama borom di ci wax ne yaa ayyuhaa llaziina aamanuu laa tadxuluu buyuutan xayra buyuutikum hattaa tasta'nisuu wa tusallimuu alaa ahlihaa jooja ma door cee ñëw ak yow waaye loolu suba ci waxtu wi lay doon incha allahu ah, yal na yàlla yóbbu ñu ci defal ñu tawfiq ak taysiir wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wasalaatu wasalaamu ala sayidina ginnaaw bi nga seetaane vidéo ba pare fekkee abonné ko na nga abonné te bës tous cloche bi ndax bu ñu dugalee vidéo nga mën di jot notification yi